alxuraan yi ñu nuyu leen amati mbégte jàkkaarloon ak yéen xam ngeen na ñu ngi si ses ci programme mu Mamy Events ngeen gis muy def euh, lancement bi nga xam ne programme bi nu jëm mbokk yi nag ki nu jàkkaarlool duñ leen ko présenté soxna Batoor boroom série bu rëy boobu sama jigéen ci loone salaamaaleykum nuyu naa leen yéen ñi may seetaan di leen jaajëfal bu baax a baax a baax mm-hmm. di kontaan tey daje ak yéen fii nga xam ne nii moom moo di ses mm-hmm. fay naa lu bëree bëri bala ma laaj li nga sañ sa laaj lan la nga nga décortiquer ma ko gars yi jëlal leen ma sañsa bi. <laughs> waaw comme ni ñu ko waxee rek Mamy Evans euh, blanc rose la wootee rose blanc la wootee ñu def rose blanc rek. ñëw mm-hmm. wuyu ko. Mm-hmm. sàcc suñu yëf rek xam nga ñun tamit faaw ñu toog des fois sàcc ay yëf ñu ñëw ci programme bi muy lansement bi lan nga nu mën a wax ci li Mamy woote. Mamy euh, dafa nekk xale. dafa nekk xale nekk jigéen gis ay moroomu jigéenam di daan doole. mais pourquoi pas mënuñu def benn foire ñu organiser foire jigéen bu ci nekk ñëw gis sa bopp ci li nga xam ne nii moom moo di foire loolu moo waral tey ñuy def lancement foire bi bien vrai que ne date yi bari woon jàppoon nañ ko jàppoon nañ ko mais dañoo bëggoon rek mu baax bëgg loo xam ne buñ ko wanee Sénégalais dinañ ne kat xale yi am nañ ambition te ku mel ni Mamy Evans dama ne. jigéen la boo xam ne nii war nañ ko jàppale jigéen la boo xam ne war nañ ko doole ci li nekk ndax boot sa ay morom yombul mais mu ngi jug di daandoo ak ñun ba tey yàlla dogal ñu def événement bi macha allah gis ngeen réussite totale la ci am macha allah nit ñi ñëw nañ presse ñëw nañ ñëpp ñëw nañ macha allah di waaj nag dina jour bu mag mooy foire bi nee vingt le 24 le 25 ak le 26 incha allah neexee ku xam soxna Bator xam ko ci série bu mag boobu mu ñëw indi ay feemam adapté wu sénégalais yëpp adapté wu ci secret soxna Bator lan la mu jékki-jékki rek mel nii ci sénégalais yi. waaw tout d'abord damay damay damay remercier sénégalais yëpp di leen remercier bu baax a baax di leen wax ne man lépp lu ma mel ñoom la ndax mënoon naa géntale kenn du ma bëgg wala mënoon naa géntale kenn du ma safoo mais dañ maa gis bëgg ma safoo ma. naa lépp lu ma mel rek ñoom la secret famille sénégalaise du dara lu liggéey rek mhm. naa secret famille sénégalaise moom liggéey kese la mhm. ay nit yoo xam ne yoo am ambition ci lu ñuy def ñoo fa nekk mhm. ku ci mel ni monsieur Ndiaye suñu PDG dinaa la kooku ku mu yor di nga liggéey par force ndax jàmbaar la ci waar bi te ku mu encadré rek ci waarika la xam xëy na nit ñi dinañ la bàyyi xel te nit ñi dinañ xam yow yaay kan ñu koy jaajëfal bu baax a baax a baax a baax ndax def na lu bari ci ñun ñu gis rôle bi nga ci joué mu nekk wujje fiir téye sa jëkkër fexe koo not ba kenn du ci jot sénégalais yi ñii dinañ ko apprécier ñii duñ ko apprécier noo koy dund waaw man euh, su ma nit rombee ne ma soxna Bator yaa soxor wala soxna Bator yaa bon damay kontaan ndax li tax mooy kontaan mooy que ni réussir naa li ma bëggoon parce que man actrice laa su ma joué dara ba nit ñi gis soxor tàngi googu ci man gis bon boobu ci man damay toog ma sant yàlla ma ne li ma bëggoon am naa ko kon réussir naa sama rôle di leen wax ne soxna Bator li mu li mu li mu li mu bëgg ci rôle bi rek li mu li tax moom mu dem jouer rôle bi li tax scénariste bi bind scénario bu mel noonu famille sénégalaise muy que ni boo leen xoolee famille sénégalaise am na ñaari différents rôles yu ci am ma naa am na am na quatre femmes yoo xam ne ñu ci nekk mais ku ci nekk wute rek ak sa morom mhm. ku ci nekk am nga rôle booy incarné ci biir kër gi mhm. te famille sénégalaise rek leçon la mhm. famille sénégalaise rek kër la ku xool famille sénégalaise peut-être yow sa biir kër am nga lu ndaw loo xam ne ni yaa ngi ko fay dund wala am nga lu ndaw loo xam ne yaa ngi ko fay gis su dee lu positif la nga jàpp ko téye ko nga wóoyool ko mais su dee lu négatif la ñu bàyyi ko te xam ne Sénégal benn bopp la kee mën koo xar ñaar mën nañoo bokk jëkkër hmm. mais ci jàmm ak salaam ndax jàmm rek mooy mooy da ngeen a jàpp ni dundunu Sénégalais yi rôle boobu ngeen jël di ko teg ci télévision en retour damay wax ne nit ñi ñooñu koy ñooñu koy ñooñu koy waxaat parce que mën nga jouer dara ba pare mbañ a neex nit ñi et famille sénégalaise man retour yi ma ci am mooy que ne tout le temps nit ñi dañuy wax ne famille sénégalaise li ngeen di dund moo am ci suñu biir kër yi nit ñi ñoo ñu koy waxaal li ngeen di dund yéen moo am ci suñu biir kër yi. moom la ñuy dund ci suñu suñu famille moom la ñuy dund fépp kon ñoom yëg nañ ci seen bopp te gis nañ ci seen bopp bu baax a baax parce que ñun loolu lañu bëggoon dañoo bëggoon suñu chef famille sénégalaise nit ñi gis seen bopp te yàlla def na ni loolu am na. ñu leen di bu baax a baax a baax ndax famille sénégalaise nee naa su yéexee dugg sax. da ngay gis ne tout le temps tout le nit ñaa ngi wax. di bind di ko recommandé naan femme sénégalaise kañ lay daw femme sénégalaise nii femme sénégalaise nii kon amuñu seen fay. mais du la bàyyi te laajunu la ci actualité en tant que jigéen ñu gis jigéen buy sëy des fois jëkkëram am ay tolof tolof muy Ndeye gëy ak Papa Boy Djiné kombaam bi bi mu jàllee coow li bari na en tant que jigéen bu nekk ci këram di sëy ak borom këram du am lu ko neex nooy jàngate loolu nañ seetaan famille sénégalaise rek Marietou yéen a jéeg yëpp <laughs> Marietou yéen a jéeg yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp ndax Marietou lu nekk mu ngi koy dund ci biir sëyam mais mu ngi muñ yàlla na yàlla na yàlla gën a barkeel seen sëy ba liñ ci bëgg yàlla defal leen ko ñu am ci njaboot bu barkeel njaboot goo xam ne fu nekk ci àddina ndax jéeg buy sëy bëgg nga loolu yàlla na leen ko yàlla suñu mag la bu baax a baax a baax yàlla ko yàlla defal jàmm ci sëyam may ko jàmm ju bare bare bare moom boo amoon conseil boo koy jox loo koy wax li ma la wax rek nee naa la yàlla na ko yàlla defal jàmm du ma ko jox conseil dama koy ñaanal ndax ñu ngi koy seen mu nekk jàmbaar mu ngi koy gis ci TikTok bi di ko gis ci réseau yi ay wajam ay ay ay ay njëkkeem ñu ngi koy gërëm kon ñu koy jaajëfal rek cat bañ ko dugg sëyam bi mu nekk yàlla na ko yàlla gën a jàppale mm-hmm. loolu lañ koy ñaanal borom këram tamit yàlla na ko yàlla gën a jàppale ci mu nekk kontaan naa ci yow maa gën a kontaan bég naa jërëjëf kontaan naa ci ñëpp dina jaajëfal baax a baax a baax a baax bég naa